waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw Bruno Sané Sané gaan waaye bagal rek may ma Sané kereen galaas la loolu mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di am mbégte kontaante di leen bégee di am mbégte di jàkkaarloo ak yéen bis bu jot rek sur la 2STV mbokk yi bu midi jotee jàpp 13h Alaaji Mbañ def na ma léegi Modou Mbaye dañuy waajal añ xam ngeen ni añ moom bu nu koy waajal gars yi dañu war a xiifal di yëy ay ngoom bu fekkente ne da war a añee supp kànja da nga yëy singom bu dee da war a añee ay ginaar da nga yëy singom bu dee da war a añee ndawal ngéwél da nga si singom si ngom baa ngi ñu préparé añ bi 12 13 la ñu wax mbokk yi ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen kontaanee mbokk yi di bëggee ñi nga xamante ne ñooy équipe technique bi nga xamante mi ngi fii ci a 2STV fas yéene ànd ak yéen midi jàpp 13h di leen siyaare ci loolu lu ne laay def damay contrôler lu ne loolu che chewi la chewi la dama koy yegal dama koy teeg noonu chewi di leen bëggee bu baax a baax xam nga sama gars yi ay ñoom mooy loolu dañ maa bëgg. samay xarit lañ moo a bu émission bi jotee ku ci nekk da ngay daal ñëw taxaw lépp rek loo am ci lu baax nga daal di ko ci def ngir mu jëm kanam di bëggee bu baax a baax Rokhaya Ndiaye mi nga xamante ne nii moom moo nekk foofu ca rési ba du Rokhaya Mbodj de Rokhaya Ndiaye la Serigne Momar Ndiaye tey mooy bés bouton démb wagee doon bés bouton tey Rokhaya mooy bés bouton di leen siyaare bu baax a baax yi dafa am lu rëy loo xamante ne moom laay tijjee tey li may tijjee tey benn clip la boo xamante ne nii dafa yàgg yàgg na yàggaay boo xamante ne nii mais la mu neex xam ngeen aji penda mbay ma cënda ndax xamu leen lool et resi ñu ñëw clip ñu ñëw clip léegi ñu duggaat loolu c'est l'échauffement balaa premier mi tàmbali ay sa clip clip clip aji penda mbay ma cënda ndax ku ma de kooku e, ba jamono yu baax way yi lañ doon way koo dee di liital nga naan xanaa ki ma bëgg ma bëgg ko koo dee di wax la turam nga naan wuy man wuy sama koo koo jare li mais léegi xale yi ñëw ñu ne la yaay bañ bërët avant kooy liital ak yooyu yëpp yaay bañ yaay bañ ba pare naan la sànneeku dañuy sànneeku fëlaale sànneeku fëlaale def lu nu saf yooyu moo fi xew mbokk yi loolu officiel nañ leen ko léegi numéro bi nga xamante ne nii moom ngay def daal di dugg ci émission bi ñu waxtaanee ko 88 le 628 14 13 ñu ngi leen bëggee bu baax a baax Passiri Fall booy def aaru mbedd man du ma ñëw sa aaru mbedd di la wax Passiri am na loo xamante ne nii mayu ma la ko Passiri eh alaay alaay rek maa yeb <laughs> sa yoon nekku si sa sa yoon nekku samay veer kaam jaale bi tax yow soo koy bàyyi muy naaw loolu na yàlla sama yoon na see neex <laughs> alaaj njaalu si yoon douze treize mbokki loolu moom mooy li nga xamante ne ni moom ngeen gis léegi muy sunu yaay ju baax jooju dégg nga ñu ne aji gànna jóob ko déedi liital loolu doon loo xamante ne wayu yàgg la way la woo xamante ne nii ci jamono mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek loolu xale yi moom lañ daan foowee di ah am na ku ne ci ligne bi 88 la def 628 14 13 wala mu def 00 221 841 23 20 24 dugg sil ma yeex ma xool la allo. Modou Mbaye. maa ngi siyaare. jërëjëf siyaar. na ko waar. sant yàlla bëggee nañ la de. yow la kan. ah kii benn Baye Fall la. ah xanaa sa kaw lal nga nekk nii. waaw maa ngi sama kaw lal waaw. maa la wax lii. <laughs> mais sa sañ sa baax na. xaa tey la non maa ngi sa ginnaaw papa dañuy foo rek. sa sañ sa baax na de. maa ngi sa ginnaaw. neexul ba neexul mais Baye Fall dëkk bi nga nag. waaw mais Baye Fall 2 point 0. non ku la bañ yàlla dee waaye. non mais maa ngi sa ginnaaw bul wax loolu. non Modou Mbaye Modou Mbaye yaa ngi ci maa ngi yow mii xoolee yow yaay temps yow. <laughs> déggoo li ma la wax nga nag. nga ni ma. mais vraiment li nga def neex na trop. ndeysaan. yow yaay l'homme de tous les temps fu la waay yóbbu nga dem ba mu neex. ndeysaan yow da ngaa baax maa lay bëggee yokk ndam rek ca kaw ca kanam. incha allah maa lay bëggee. am sa numéro. aha. Uh-huh. maa lay kontaanee kontaan naa ci yow bu baax a baax. kontaan naa trop maa la gën a kontaan am sa numéro rek laa bëgg. sama numéro bul coupé waa Régis nañ la ko jox bul coupé jël leen ko suuf dafa sama numéro bi. bu leen ko jox numéro bu bon bi nag jox leen ko numéro bu baax bi tam ngeen habitude bu bon yow Rokhaya ku fi woote nga jox ko sama numéro bu bon bi <laughs> kontaan nañ ci moom mbokk moom nga xamante ne ni moom moo dugg léegi ba mbokk yow jox la wax nañ leen numéro bi mi ngi noonu affiché ci baaw écran bi bu ko xoolee di ngeen ko daal di gis dugg ñu waxtaanee ko tey nag li ma bëgg ñu waxtaanee ko mooy tey la jeunesse la jeunesse sénégalaise li nga xamante ne nii moom moo fi am ka muy góor ka muy jigéen ci li nga xam assez gloire sax yoon nekku si ñoom ka muy góor ka muy jigéen ni nga xamante ne noonu la war di communiquer ni nga xamante ne noonu la war a waxtaanee ci suñu biir mbokk loolu doon loo xamante ne ni mbir la parce que léegi seetlu nañu façon de communiquer yi façon de communication bi changé na bu njëkk daanaka mag ñi dañ daan wax wala ñu daan junj loo xamante ne nii rek bu ñu ko junjee rek xel yi dina dem ci li nga xamante ne ni loolu la ñuy wax waaye léegi ay terme moo xew yoo xamante ne nii mag ñi sax duñ ko comprendre léegi da ngay wax ak sa papa ba mu yàgg sax nga ni ko mooy loolu quoi xam nga mooy loolu. mooy loolu kenn du ko waxtaan kenn du wax ak sa papa naan ko mooy loolu loolu bokkul ci li nga xamante ni ni mooy éducation kenn du wax ak ku mag naan ko xam nga quoi yees da ngay maar yooyu bokkul ci li nga xamante ni ni moom mooy éducation xale bu fekkente ne dafa ne ci réew bëgg réew ma dox day xool na nga xamante ni ni moo gën a rafet mu di ko doxee ñaq naa de barke Rasulullaay tey teel naa ñax tey moom sama échauffement bi daa teel a tàng tey moom sama échauffement yi yee ëpp na waa alaaji wu yaay ay wu yaay Pasir yow nekkate vrai fecckat nga yow Pasir Fall yow nekkate rappeur yi yow nekkate da ngay xaat koor a xaat koorlu ci télé bi ngay xaat sama yoon nekku ci nga naan ma lii ci télé bi ngay nekk di xaat koor xaat koorlu yow nekkate doo dara yow doo hip hopeur yow xam nga lan nga yow mbalax maan nga yow mbalax maan mas mbalax maan rappeur yi bii di ñëw ci mbalax foofu laay <laughs> foofu laay wax yow loolu moom mooy li nga mbokk yi comme ni ma leen ko waxee léegi la façon doom on parle avec les parents façon bi nga xamante ni noonu la ñu war a waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñooy suñu ay moroom façon bi nga xamante ni noonu la ñu war a waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñoom ñooy suñu ay raq yooyu yëpp ci façon communiqué façon communication bi la nekk tekk birino sa caméra baaxul mën nga koo teggi de pousse ko jàppale ma yaa ngi may rey yow da taxaw di ma lay xool nekkate baaxul seexlaay mi ya baax indil ma seexlaay voilà <laughs> façon bi nga xamante ni moom lañ war a waxtaane mbokk yi loolu yëpp tey lañ koy dëxañ ci biir émission bi di 12 13 ma wax leen ko ñu waajal añ waajal añ boo xamante ni nag bu doy waar lay doon <laughs> waajal añ boo xamante ni nag bu doy waar lay doon waaris yi ñu ngi fi ñu ngi waajal li nga xamante moom mooy bagage yi clip yi waaris yi leen ma beneen clip boo xamante ni nii bu bees la ñu waxtaanee ko rek ci biir 12 13 ñu waxtaanee ko ba tey numéro bi mi ngi noonu affiché ci baaw écran bi ku na nga daal di joxe na daal di composé numéro boobu dugg ñu waxtaanee ko ci biir 12 13 waaye ba tey clip indi leen ma clip clip clip dugg yaa may daaneel fii ku nekk am nga ko lay daaneel ah fii ku nekk rek am nga koo xam moo lay daaneel am ñoo xamante ne seen semaine bële passé lañ am ku leen daaneel am ñoo xamante <laughs> am ñoo ni daaneel bi ko taxee yaagul am ñoo xamante ni nii <laughs> eh am ñoo xamante ni nii yoroo poon yow am na ñoo xamante ni nii ki <laughs> yoroo poon benn waay la benn mbër la mbër mi daal ci làmb ji la nekk ku mu ne nii rek nga ne ko déedéet. mbër mi comme nii rek nga ni déedéet ngay naan mais kii champion ak ni mu tuutee kenn nanguwul bëreeg moom ndekete waa ji dëkkul kenn dana naan yoroo poon nga ne ko non yoruma poon de mun la jàllal ci mu jàll ci keneen <laughs> <laughs> loolu mooy li nga xamante ne ni moo am ca làmb ja keroog ñu fa demee mais ba tey mbokk yi ci li nga xamante ne ni moom lañ doon waxtaanee. ci li nga xamante mooy la façon dont on communique ak ñi nga xam ak ci suñu biir la façon bi nga xamante dañ moom la ñu war a communiquer ak suñu ay parents parce que da ngay gis nit koo xamante ne dafay am soxla dafa am loo xamante ni moom lay bëgg a waxtaan ak ñi nga xamante ne des fois ñoo ko mag mais façon bi muy waxee rek dina tax. ñi ko mag du ñu wóolu sax li nga xamante ne loolu lay wax parce que façon bi dafay dëgg la jamono dafay dox bu jamono di dox dañuy ànd ak jamono dox mais ça veut pas dire que dañuy jël lépp ñu changé ko am na loo xamante ne nii fi lañ ko fekk am na loo xamante ne nii ñun ñoo ko moom am na loo xamante ne nii ñun ñoo ko war a waxtaan wala ñun ñoo ko war a suuxat ñun ñoo ko war a jëmbat ngir mu gën a jëm kanam loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ fi fekk muy sunu cosaan cosaan googu nag day loo xamante ne nii dañ ko war a jëmbat mais ba ci ñi nga xamante ne noonu la ñuy waxtaanee ak wayjur yi wayjur yi bu ñuy wax ak ñoom dañu war a wax ak ñoom ci kàllaama goo xamante ne ni dafay leer nañ ci suñu diggante ak ñoom ci kàllaama goo xamante ne ni boo toogee ak sa wéjur nga wax ak moom dina xam ne kii kat li muy wax ñor na ko kiikat li muy wax doon na loo xamante ne ni lu am solo lu am solo la waaye taxaw ak sa wéjur muy wax ak yow nga naan ko non c'est xam nga quoi démb xam nga di non loolu du façon bu nuy waxee nit buy wax ak ab wéjuram dafay yaru nit bi wax ak waajuram dafay def comme nit koo xamante ni nii mi ngi wax ak sëriñam parce que gis nañu gaañ ñi nga xamante ne noonu lañu fonkee sang yi sang yi dëgg la ñoom na leen a war fonk parce que ñoom la ñu yaakaar ndax ñoom ñoo dox suñu diggante ak suñu boroom ñoom ñoo ñu yóbbal fa si nga xamante moom mooy fa suñu borom mais jur yi ñoo ñu indi ci àddina ba tax ñu xam ñooñu jur yi ñoo ñu indi ci àddina ba tax ñu mën a gis ñooñu ba bëgg leen wala wóolu leen ba mën leen a mën a jox suñu bopp mais waajur yi ngay njëkk a jiital teg teg leen place boo xamante ni tegoo fa kenn ndax loolu la yàlla wax yàlla dafa ne da sa way jur ngay jël teg ko ci place boo xamante ni tegoo fa kenn laataa nga faa teg keneen kon gars yi nañ delloosiwaat xel yi nañu xam ni li nga xamante ni nii mooy façon bi ñuy communiquer façon la boo xamante ne bu ñu war a defaraat la façon la boo xamante ne bu ñu war a xam bu baax a baax a baax di communiquer noonu comme ni leen ko waxee woon rek 12 13 émission la boo xamante ne relax time la émission la boo xamante ne dañuy waajal añ bu añ di waaj jot dañuy jël suñ temps te comme aja ngi waaj jot dama leen di bàyyi ak waa Régis ñu dugal publicité et eh, publicité publicité publicité publicité su duggee ñu ñëwaat. Attends, c'est ça le gel antiseptique Valda. Ça désinfecte les mains et ça te protège contre tous les microbes. Avec le gel antiseptique Valda, on a les mains propres. Gel Valda, un réflexe de main propre, pratique pour une désinfection sans eau, ni rinçage des mains. ndeysaan dama liggéey loolu am solo la liggéey mooy tax nit ki mooy tax góor doon góor parce que dama léeg nga dox si mbedd mi ba mu yàgg rek dégg booy ku ne nii kii ni mu bëggee jigéen mais jigéen ñee tax ñuy liggéey <laughs> soo bëggul jigéen yow lan ngay bëgg soo bëggul jigéen yow léegi nga nekk góor boo bëggul jigéen looy bëgg da bëgg góor loolu la de loolu baaxul góor du bëgg góor loolu baaxul góor jigéen lay bëgg loolu ko ça soit keleer góor bu bëggee góor kooku loolu noonu du góor de affaire boobu noonu la <laughs> te loolu baaxul ba tey mbokk yi ci biir émission bi nga xamante moom mooy 12 13 wax naa leen ko ah tey nag dama fi dalal ci kanam tuuti rek benn xale boo xamante ni nii démb laa ko soog a gis ku rek li nga xam ngay wax na ku ne wax nga xam na ku ne wax li nga xam na ku ne wax rek nga xam li ma xam mooy xale bi démb laa ko soog a gis bi ma ko gisee démb ci émission ba doon def. bu ñu doon tournée bu mag boo xamante ne 2STV mbokk yi mi ngi ci production bi fan yi rek xam naa di ngeen ko gis damay bañ a teel damay teel damay bañ a ëppal ndax yooyu yëpp kenn wax loowu ma ko man man damay nettali loolay sama cat damay nettali te nettali <laughs> baaxul ba fa gis benn booy booy ba tent way booy ba wayee sama benn xarit boo xamante ne ni moom ci rab bi lay yëngu waaye ku wax ku ne der rek xam na li ngay wax mu ne ma alaaji xale bi li mu wax dafa ëpp moo tax ma indi ko ci plateau bi tey bëgg ñu découvrir ko xool xale boobu moom mooy kan xool xale boobu lan la li nga lan la mëne lan moo nekk ci moom ba tey rek ngir jàppale xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suuf ñoom ñëpp ngir ñu bëgg ñu daal di yéeg ci kaw fekk si ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw mais comme rek ni ma leen ko waxee woon démb liggéey rek liggéey rek mooy tax ngeen yegg foofu liggéey rek mooy tax ngeen am loolu nekkul génne benn son rek sa koñ topp la da aay nekkul loolu de affaire bi du loolu de affaire bi liggéey la boo liggéeyee rek da am lu bari xale bi mi ngi tudd Kamal mi ngi bokk ci xale yi nga xamante ni nii mu ngi bokk ci xale yi nga xamante ni nii Kamal taxawal naa la woo nga ñëw Kamal yow ëppal nga torop yow wooguma la ngay naan da ngay ñëw mi ngi bokk ci xale yi nga xamante ni nii moom it xam nga ñi ngi ci yoon ñi ngi ñëw mbokk yi ba tey comme ni leen ko waxee woon numéro bi mi ngi doon affiché wu ci baaw écran bi waaye damay dalal nit ku baax Kamal ma bëgg nga yegg si. li nga doon jéem di ko téye yéen waa bay ci war a xëy goo bi tey li nga doon jéem di ko téeñe yéen waa ngi ni tey sa bés ñëw na faw ñu lalal la nga jàlleey bés bi ñëw na sa bés bi ñëw na bés bi ñëw na bésu mbégte ñëw na sa bés ñëw na faw ñu la ko doon jéem di ko téeñe yéen waa ngi kon noo ko xamee noo ko xamee ni yéen waa ngi tey lool day ci waar ba war a xëy noo xamee ni lu waay doonu taalibeem doo doon sëriñam yow di ko téeñe yéen waa ngi waaye yow noo xamee ni loo jàngul doo ko tari faw ñu lalal la nga jàll lay lay la laa bés bi ñëw na sa bés ñëw na bés bi ñëw na bésu mbégte ñëw na sa bés ñëw na faw ñu loo ko baa ngi ni mbokk yi je vous présente ce jeune homme yi xale bi mi ngi Kamal Kamal na nga def na nga def ça va taxawal nii taxawal nii ñu jàkkaarloo nii Kamal nuyool salaamaaleykum Modou ginnaaw bi ma la nuyoo di nuyu Sénégal di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant di ñaanal samay ñaari waajur di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér. di nuyu tamit dëkk bi ma jógee muy Tivaouane. macha allah aw ma lu dul ñoom. foofu laa dëkk juddoo fa yaroo fa màggee fa. Mhm. yàlla dogal ma ñëw zone B fii ci point E. Mhm. côté Grand Dakar. Mhm. ñu dalal ma. ma nekk ci am di muy sama producteur. exact mu defal ma lu nekk. ba morceau yi ma génnee yéen a ngi koy teg sama clip chaque jour ngeen teg ko. ah aw ma seen fay daal waa. Kamal yow génne nga ah mooy ma vie. je veux que tu sois la femme de ma vie. et je serai l'homme de ta vie. je veux qu'on soit ensemble pour la vie. je serai toujours à toi. et tu m'appartiendras. oh oui pour l'éternité. lan mooy Kamal. Kamal ah. Ah, mooy Kamal. mooy mooy sa tur Kamal nga tur dëggantaan Njaay. Kamal laa tudd Kamal nga tudd nga bàyyi ko Tiwaawan mbokk yi gis ngeen kooku jaratul di ko présenté dégg ngeen li mu wax rek man fi toll damaa ñàq tooy xeeb man bu ma déggee dëgg rek bu rek dama koy nangu mais xale bi li mu nga xamante ni jot na ko yooxu doon na loo xamante ni nii wax dëgg yàlla seral na xool te daw na yaram yi macha allah Kamal nga nekk xale mhm. lu la dugal ci aar ah, li ma dugal ci aar nag Modou man dama teel a way parce que ku xam kajoor xam ni dañuy way mhm. parce que ki Lam fa la jógee. Mm-hmm. Alaaji Mansour Mbaye fa la jógee. Kumba mm-hmm. Gawlo fa la jógee. Mbaye Mbaye Nder fa la jógee waaw waaw. man ma nekk xale bu ndaw Njaga Mbaye fa la jógee. waaw waaw ma nekk xale bu ndaw de cinq ans laa commencé way. Mm-hmm. bi may am cinq ans. may def jardin ñu ñuy wayloo ñu ñuy wayloo ay cœur d'ouverture ma ciy way. dem ba am quatorze ans ñëw ci Baba am bi ma amee quatorze ans ñëw ci Baba Amdi am quatorze ans nekk xale mu awloo ma Viviane. Hmm? ma aw Viviane euh, album reetaan man maa ko aw nekk ci moom mu may tàggat di def ci man art di def ci man musique ba daaw ma génn single def ko clip muy ma vie bi ngeen di teg chaque jour. Mhm. am na tamit yeneen yu ci topp ak yeneen yeneen ak yeneen mais clip yi ñëwagul. Mhm. incha allah mais avant avant avant avant musique bi. Mhm. Kamal jàng na. waaw jàng na. ba ban classe. ba seconde. ba seconde. Mhm. lu tax nga arrêté ko. non arrêté wu ma ko ren damay jàngat. yaa ngi continuer ah ren nga fas yéene continuer. mais toog nga des années. jàngoo waaw toog naa benn année muy jàngu. tax. xam nga rek nekk ci ay affaire mais. dañ koy continuer parce que sama papa na ma il faut nga am bac bala ngaa continuer. normalement mais est-ce que ce sera ce sera facile d'allier les deux. ah oui incha allahu rabi nañ ko programmer dina dem bu soobee yàlla. parce que euh, lépp loo gis jàng moo jiitu. moom la ñuy jiital lépp lu ci def ñu toog ko ci ginnaaw lu waay doonul taalibeem du doon sëriñam te lu waay tariwul du ko lu waay jàngul du ko tari mhm. déedéet nit ki lu muy def rek ci àddina daf ko war a jàng nit ki lu muy def ci àddina rek dafa war doon loo xamante ne ni lu mu maîtriser lay doon loolu doon na loo xamante ne ni tubaab bi sax wax na ko loolu wax dëgg yàlla loolu xaw ma proverbe ba lanati la proverbe ba xaw ma tout ce qui sa xaw ma lan ak lan ak s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément loolu ku ko waxoon Boileau moo ko waxoon sama waaja wala Baudelaire Boileau ko waxoon kay loolu Boileau ko waxoon Fall xoolaatal dictionnaire bi maa la wax lii loolu mi ngi ci philosophie wayal ma ma dégg la Sëriñ Babacar Sëriñ Babacar mooy baayu Sëriñ Mansoor borom daara jeey Serigne Babacar Serigne Babacar mooy baayu Cheikh Tidiane borom ruqubey mu dumba yaay tey laay way Serigne Babacar ndax man kamaati waawoon laa juddooy fala yaroo fala màggee ñu nandal ma ci Serigne Babacar sëriñ Babacar mooy baayu sëriñ Mansoor borom daara jee ba rek dara maal aram loo kumba caam bëgguma penda ak pate penda xar yàlla bokk coor ñu ngi lay bëggee bu baax baax si Malick di siyaare xalif bu baax boobu nga xamante moom moo nekk ci jal ji ci jal bi di ko béggee di ko ñaanal yàlla sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg mais mhm. dama laa dégg nga acapella mais li nga acapella traditionnel la mhm. ma dégg nga wax ma ni moom li nga woy ci sa single bi mhm. loolu doon daanaka moderne loo mën a nandee ñaar yëpp. ah baabaa ñu yor te yow xam nga baabaa am di. Mm. vraiment lu waay da gàtt dégg-dégg dégg nga baabaa am di. Mm-hmm. xam na ni fii ci Sénégal wax dëgg yàlla bu dee cent pour cent cinquante pour cent yi ci it yoo xamante ni moderne la moo ko def wax dëgg yàlla muy man muy bambali defal na ko Titi defal na ko Wali defal na ko ñëpp. Mm. defal na ko Viviane. Mm. kon nag bu ñu yoree mënuñu lu dul nekk tradi nekk moderne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ndax bi ñuy ñëw ci moom tradi leen ba fees dell. waaw. mu jël loolu lépp teg ko na ni ma comme que am nga trad yi hmm. jël ko nga teg ko na le ñu joob moderne boo yàggee ci moderne bi du yóbbu trad yi du ko yóbbu mukk ñun kajoor lañ jugoo la joor kajoor nee na ñaawuloo sa dëkkale suñu firnde samba law be nga ca garba jirindar mela nga keskay ah. samba yaxya nga ca diqum ndaam te bañ lu ñaaw rek taxoon kon traduit du jug ci ñun mukk traduit di jug ci yow man de fi toog sama yaram wee daw <laughs> sama yaram mooy daw nii mooy kurit nii nga nekk xale nga dugg si ci aar bi nga gis mm-hmm. li nga xamante ne en ce moment noonu la aar bi baree ay xale dëgg la noo war a def lan nga fat ban yoon nga war a jaar ba wanes ba ba différencier sa bopp ak style bi nga xamante moom moo fi nekk dëgg la aar bi bëri na ñu samay morom bëri nañ ci ñoo ñu nekk ay ndaanaan mhm. parce que may xarit ñoom ñëpp mhm. muy Sidi Pama El Hadj mhm. Keita Abiba ñoom ñëpp samay xarit lan ñooy nekk mais ku nekk am na benn affaire boo xam moom nga def nii ñun tamit yàlla dogal wax dëgg yàlla néew ñu mën nañ way mais fu ñu woyee nit ñi kontaan fu ñu woyee ñu sentir fa touche personnelle kon nag ci loolu la ñuy jéem a dëgg suñu tànk rek parce que ku nekk loo loo xaarul du la fa fekk. Mm-hmm. style bi nga xamante ne nag moom la ñuy woyee moom la ñuy dëgg rek téye ko fa incha allahu rek bu daggul dina dikk parce que xam na ne li ñuy woy jaar na yoon. géwél nga. man ñeeño la ñeeño nga. kilib kilib kilib kilib. Mm-hmm. kéléb kéléb kéléb kéléb kéléb kéléb gaaw leen waaye eh, fi may jeexalee ngeen soog a duggee quoi mais bi may soog a tàmbali mu nag yéen a dugg loolu doon way woo xamante ne Aïda Samb ko way mm-hmm. Mhm. Mhm. jël doomu jàmbur yóbbu ko ci sëriñ liggéey ko ngir mu tàqali ko ak sagoom jël doomu jàmbur yóbbu ko ci sëriñ liggéey ko ngir mu ñàq place bi nga xamante ne foofu lay liggéeyee lu mhm. ci sa xalaat loo ci wax ah Aïda de moom woy lu dul tem dëgg yàlla bi ñu ko xamee ba léegi tem rek lay woy lu neex rek lay woy bu woyee rek moom mooy koo xamante ne nii mën na la woy ngay jooy waaw Aïda Samb mooy koo xam mën na la tiim di la woy ngay jooy kon nag bu defee lii génne tem di ko woy dañ cee war a jël leçon quoi parce que way bu yeetewul diglewul du ay way ay naxaate naxaate la sama maam Njaga Mbay moo ko wax kon nag moom mi ngi ci tànk yooyu te gawlo la uh-huh. wax dëgg yàlla maama ma daan yee nit ñi uh-huh. maama ma daan yee nit ñi uh-huh. di leen waxal lu baax daan way buur yi daan way njëriñ kon moom bu defee lii wàcc na bu defee lii wàcc na ba tey ci tem boobu nga xamante moom la Aïda Samb ci thème tey émission bi dafa am thème. Mhm. thème bi mooy la façon dont on communique entre nous. Mhm. façon bi nga xamante ne ñu ngi koy communiquer entre sunu sunu digganteeg sunu ay waajur. Mhm. façon bi nga xamante ne ñu ngi koy communiquer suñu digganteeg xale yu jigéen ñi sax. parce que démb fi nga xamante ne foofu laa la découvrir comme ni ko Pape Sidi waxee da ngaa ñëw ñu bari topp sa ginnaaw. xale yu jigéen bi nga yéegee ñu bari dañu kontaan. mais communication bi nga xamante ni moom moo am suñu digganteeg suñu waajur parce que da ngay gis ku taxaw ak papaam naan ko xam nga mooy loolu quoi. du wax dara lu leer. loolu loo ci wax. man émission bi tam bi nga jël am na solo. parce que euh, am na sax morceau bu ma def boo xamante si nii mi ngi waaj génn jigéen ñi la tudd. maa ngi ci way damay way jigéen ñi dellu di baalu jigéen ñi xam ni bu dul woon ak ñoom kenn ci ñun du fi toog ba naan yaa ngi jiite yërëm leen bu baax bàyyi leen xel ci ñoom ci li ma gis man. nit ku nekk ak ñoom dang leen waar yërëm ci li ma xam man eh. bu coow li bëree del bëree ñoom taxawal taxawal waxaatal ci li ma xam man waxaat ko ci li ma gis man faal gu nekk ñoom dang leen waar yërëm eh ci ma xam man eh taxawal paye paye point dictée boo gis day am point à la ligne wala eh, taxawal de booy loolu booy lii la la <laughs> booy da maa bëgg rek sama plateau bi. mais Mor job rek bëgg Sénégalais yi bu ñu génnee ñoo xam ne Kamal la doon job seen doom ñëw na doom boo xam danaan liggéey ñëw pour exposer leen lim liggéey kese moo tax démb man la Modou invité ma pour sénégalais yi xam ni Kamal kat mi ngi liggéey. Mm. parce que ku fi parce que tàgge boo gis am na jàppal diw. maa la wax lii. ate boo gis rek am na jàppal Kamal. am na jàppal Kamal indil Modou Mbaye maa la wax dëgg yàlla. dëgg la te nag euh, képp ku fi siiw wax dëgg yàlla ci yéen la jaar. dëgg la te tamit yoon la nit ngay def lu neex. loo xam nit ñi war nañ koo mën a dégg. Mhm. nga dem ci ñi nga xam ñoo ko war a génne. Mhm. nga wax leen ni leen ñu génne ko. Mhm. te vraiment maa ngi bootu ci seen ginnaaw parce que samay grand frère ngeen. samay mag ngeen yaa baax parce que tamit euh, ku ne xam na li xew. da nga ko dul nangu rek mais ñun ñëpp xam nañ li xew lu xew dëgg yàlla lu xew mooy yaa xew <laughs> Modou yow yaa xew li xew daal mooy douze treize mhm. douze treize a xew préparé añ dëgg la bu fekkente ne da ceeb bu xonq raxasul toog bu fekkente ne def ceeb bu weex ah dafa raxas toog Amadou Ndiaye maa fay palaatam da raxas toog <laughs> dem ba sekk nag sama xarit boobu xam nga lu mu bëgg mbaxalu puuj paaj kon raxasul toog ceeb bu ñebee mën nga koo togg non yaa salaa mun togg nag. <laughs> damaa am sama benn xarit boo xamante ne nii temps la takk jabar mais avant muy takk jabar moom ay copain am ñoo dëkkoon mhm. <laughs> lu ñuy jël spaghetti. non <laughs> ak pomme de terre. non man booy yàlla bu nu pate. mais lool boo ci dëkkee da ngay pate Modou. xam nga célibataire moom yow am nga jabar. non Modou man 19 ans rek la am. wër na billahi walaay taala. Eh, booy bàyyil maire yi. barke Serigne Ba. booy yow dem nga maire yi dagg sa. at non billahi walaay taala. 19 ans billahi. ah wóor na yàlla. xale nga kaman 99 laa judd. 99. boo gisee sikkim beeg yooyu waaw man yaa wulli damay jël abu wulli man yàlla lu tax joxuma sikkim. waaw vraiment moo tax sama papa bi ma gisee moom sikkim mu ne oh karaw fu ko neex lay génn. ay <laughs> eh, kamal yarul kamal yarul waaye. karaw xeebul kenn karaw xeebul kenn yow sax yaa am sikkim. kon ñëpp dinañ am sigim billaay mbokk yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen émission 12 13 wax naa leen ko ren bàyyi noonu clip ba may leen ma ko hmm, loolu am na solo clip bi moo nekk noonu clip bi kañ la génn clip bi génn na décembre bi passé décembre bi passé ah ah. xam nga démb dama doon waxtaan ci benn affaire mm-hmm. dama ni les jeunes les jeunes talents wala le jeunes artistes dañuy nekk dañuy toll foo xamante ne dañuy génne benn clip mm-hmm. génne benn son rek sa waa koñ ne la yaa fi daaxaway mm-hmm. yaa fi mën loolu dalu la non ñun ba tey dañuy jàpp ba tax nga fuuy. fuuy ñun mënuñoo fuuy. mënuñoo fuuy sax parce que danoo jaar ci daara jaar feneen ak feneen ak feneen. jaar nga daara. Iran Ndao dóor na ma ba may bëgg a dee. Iran kon jàng alxuraan. waaw ah, oui. ah nañ alxuraan jàng juddoo noo def am nekk ci biir bopp yi nag tamit wala. ok ah oui. ok parce que dama gis xëccoo. Mhm. bi nga xamante ne ni am na. ci ci a ci yéen ah. ci seen ci yéen jeune talent yi. ku ci nekk sa waa koñ ñu xëcc indi ci yow. mais est bu sa waa koñ rek rek rek rek mhm. indi ci yow dina doon avantage ci yéen. Ah benn avantage la. parce que euh, fi nga dëkk bu ñu la gëmee. Ah. mooy bay sa weewu tànk. ah oui ah. parce que nul n'est prophète chez soi. Mhm. yonent bi dëkkoon da ko génne. Mhm. kon yow doo yonent bi doo dara fi dëkk accepté la. ci ngay def loo xam da ngay génn. kon amoo lu dul sant yàlla. te bouche à moo gën a gaaw lépp. ndax tey ki ma dëkkal moo mën a dem ci xaritam boo xam dëkk na Ziguinchor ni ko booy seetaanal Kamal. Uh-huh. Modou Mbaye ni ma ah dem ci xaritam ni ko booy gis nga booy Kamal bouche à oreille boobu moo gën a gaaw fuuf. proximité bi. ah oui loolu nag bu ci télé toppee wax dëgg yàlla da ngay sant yàlla mais foofu moom mënuñu koo def. Uh-huh. parce que Tivaouane lañ juddoo yaroo fa màggee fa nekk ay ndongo daara ñëw. Uh-huh. lii dafa nekk suñu loo xam des ni yàllaa ñu ko nattoo rek. li doon wax ndax buñ sañoon nekk doomu yonent bi. ñu ñuy way mais musique dafa nekk ci ñun. wax dëgg defuñu ci nag loo xamante si nii suñuy moroom bu ñu gis dañuy yàq uh-huh. parce que ñu ngi koy sellal di fonk waxtu juri juróom di def lépp loo xamante si nii sellal maanaam yow amoo gel ah yow doo lii man dix-neuf ans la am amoo bi eh yow Kamal bàyyi ma man di profité ah di dugg Grand Dakar di jaale suñu frère Ben yaayam way juróom wu jigéen moo génn àdduna ñu ngi koy mm. jaale di ko ñaanal yàlla sunu borom xare way juróo ajana suufu Tuuba woyof ci kawam mm. di ko béggee bu baax a baax benn suñu frère nga ñu ngi bokk ak yow naqar bi vraiment Grand Dakar yëpp ñu ngi lay jaale ah bu mm. baax a baax a baax a baax a baax mais aussi di nuyu suñu yaay ay Aïssatou Fall mu xalifa Sall ñu ngi koy béggee bu baax a baax di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm moom tamit sunu bàjjan a Ndiaye mi ngi foofu ca Grand Dakar ñu ngi koy béggee bu baax a baax moom tamit gis nañ liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey ci Grand Dakar noonu la gox bu fa ay nit nekkee dañ koy cëkkatoo bokk ko séddoo ko buñ ko séddoowee rek ku ci nekk def li nga xamante ne moom moo la war ko après dëkk ba dina daal di jëm kanam sunu papa Farba Ngom doomam day anniversaire nu mu tuddoo xama xaba xaba Ngom joyeux anniversaire bi yow laa ko souhaité waale ak sunu papa Farba Ngom yéen ñaar bokk anniversaire bi. yow Xaaba Ngom. eh waay. <laughs> Modou ci yow mu ngi lay souhaité eh yóbbante ci yow. mu ngi lay souhaiter happy birthday. xam nga dañu doon nekk naan joyeux yooyu xewit na Kamal créé bu bees tàq te bu ko kenn sàcc nag booy. mais Modou loolu sama morso la. ah. dama woy joyeux anniversaire li metti sa xol. Mm-hmm. te ku nekkit li la gënal. kon waaw ndaw si dafa toog ba xaaju guddi. tëb ci lalam rek toog di jooy man jot naa ko laaj sax lu muy jooy mu ni sama jëkkër guddee na wootewul kon Moodu Mbay Bintu moom mooy. Awa Njaay Awa Njaay Awa Njaay Awa Njaay moom mooy yóbbante ci yow. waaw. nee na lu tax doo dalal xelam. ay awa maa ngi dalal sa xel dootoo bàyyi affaire yooyu dootoo yóbbante yooyu. dafa am mos a bu bees boo xam génn bu yàggul. yaa war Demba Seck la Demba Seck la la jabaram yóbbante si moom. yow Demba Seck. kan moo ko yóbbante. madame madame madame madame Seck. madame yóbbante ci yow moo ngi lay souhaiter happy birthday. eh waay Arkiro Sulaay gis nga lii. yaay xale bi yàlla yàlla guddal fanam. amiin kontaan naa ci yow. amiin merci beaucoup moom bëggee naa la loo wax ci teew ci émission bi 12 13 boo amoon xel moo ma ciy jox àddina yëpp ak ñuy seetaan. xel moo ma ciy jox ne ma moo yokkal lii wala wàññil lii. moo yow amuñu lu lay dolli. ndaxte sant yàlla rek. billaahi ndax bu la neexoon nga ni sama émission la ku ma neex laay invité mais démb nga ma gis invité ma tey. te te dem nañ fu ne. Mm. wax dëgg yàlla mais démb nga ma gis invité ma tey tey mooy seen premier plateau télé. deuxième deuxième. deuxième benn bi Sen TV ñoo ma bi sama single di soog a mais sama clip bi mu génnee bii mooy sama premier plateau télé nga invité ma. macha allah te du ma ko fàtte mukk incha allahu rabbi macha allah. tamit mënu fi jógee te du sant ñi nga xamante si nii fa laa jógee. Mhm. muy Tiwaawan sànq njëkkee naa ko. Mhm. dama koy mujjee ndax aw ma ñu dul ñoom. Mhm. Tiwaawan laa am fa laa juddoo fa laa yaroo fa bi ma jógee foofu ma ñëw zone be mhm. ñu bëgg ma trop. Mhm. ma dëkk kër ba defe naa ba ñëpp xam na. ah sunu papa. papa ba maa ngi koy nuyu. yaayu papa Ndeye Geng Siri ak Saliou ak Saliou ak ñëpp ak Thiat waaw <laughs> ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu mhm. sama yaay Yaama Ndiaye. di nuyu tamit waa Tivaouane di nuyu waa zone B aw ma seen fay. macha allah Modou tamit duma fi jógee te du ma gërëm Baba Amdi. Baba Amdi. billaahi walaahi taala ndax lii ñu gis ci man. ba tey su ma woyee nga kontaan. moom la. ndeysaan billaahi walaahi taala am na solo moo may génneel ay single. macha allah maa ngi koy ñaana lépp lu mu bëgg. yàlla defal ko ko amiin yàlla jubóole ko ak jabaram amiin ko ak njabootam amiin may ko gudd fan ak wér amiin ma fayam kontaan naa ci yow merci beaucoup naa ci a baax mais tamit kontaan nañ ci yéen ñi nga xamante ne mbokk yéen a taamu woon la 2STV def ko télé bi nga xam moom moo leen di wéetale diggante midi ak 13 mhm. mbokk yi ëllëg keneen dina ñëwaat Fatima laa la tudd ànd ak moom ci biir 12 13 waxtaanee li nga xam mooy tàggat yaram ñoo ngi dem ciao ciao à demain ciao ciao à